salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site bi nga xam ne moo di 28 pro tey nag ñu ngi fii ci daar Mousty ci seen euh, màggal spécial Darou Mousty bu ñu waxee daar Mousty nag xel yépp dinañ dem ci Maam Thierno kon daal ñu fas yéene ànd ak yéen wan leen màggal gi ak nan lañ koy dundalee fii ci Darou Mousty. ay saafara doomu aadama feeñ la dana saafara itam baatin mooy la nëbb nekk yàlla na nga yokk fi jumaay Tuubaa nga yokk Maaleykum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

muy daaru man naan ka fa ba defee ni sëriñ Touba lay dëkkal ndigal bàyyi ko ca yàlla ñëw ci Jibril ñëw ci sëriñ Touba mu tagtal ko mu muccil buróoj maam Thierno daal di jot euh, maam Serigne Touba daal di koy yónni mu daal mu daal di wër si bataaxal bi mu di ko wër ba ñëw fii ci daaru muxtil buróo ji sanc ko boobee jamono ndox fi jëkk a jafe daanañ ji xaal ngir bëgg ndox mu ñuy naan bu nooree pour ndoxum xaal mi boobee jamono ndox manqué fi lool maam Thierno Birahim ak dëkk bii ak maam ñoom booba jamono àll fi nekk ak ak rab ak pël a ah, am na ñett yoo xam ne maam Thierno liggéey na fi ay at lu mu liggéey ñu yàq ko ba mu sonnee mu dem ca tubaab ba ca ndar ni ko dama bëgg nga may ma ndigal ci rab bi ci àll bi ñu di ko wax galo pël ak golo pël ak ngara pël tubaab bi may ko ci ndigal daa jaay ko ay fital mooy ngarul fital yi daaru musti yor moo tax sëriñ bi daaru musti bu ne sañ a yor ngar sañ a yor fital waaw loolu ca jamono maam Thierno moo ko lijjanti léegi nag dëkk bii ah sëñ Moda Ball moo jëkk a nekk première xalifa maam Thierno bi mu wàccee màggal gii nag di soobaan mboolem màggal moo ci mag ndax bay sëñ ci sëñ Fallou laa dégg ci lamañu mu wax ni bi maam Thierno nelawee sëñ Moda Ball daa bëgg na jël bisum nelawog maam Thierno sëñ Fallou Mbacke ñëw ni ko Moodu mu ni ko Mbàkke mu ni ko Moodu mu ni ko Mbàkke mu ni ko Moodu mu ni ko Mbàkke mu ni ko màggal gi du lu ñuy taxal bi may gone maag Moodu Moustapha Mbàkke sa mag ja boobal la fekk nanu Touba jox maam Thierno màggalu ni sobaan mu di ko màggal bindi gone saa baay Thierno Birahim moo nu yar maag Moodu Moustapha Mbàkke ba nu mu jàngal nu ban ar mu yee nu ban jar mu teg nu ciw yoon te duut lu ko wàcc muy wayu ximoo salaata muy julli wayootoo sakkaata muy gor su bann ban am na natt ko jox ko faqir miskin euh, miskin mbaa faqir wa sawmu ramadan muy woor weeru koor bu dul maam Seex Rafaal wa ajjul bayti li man astata ilay sabilan man baare mii nag man Serigne Bara Lay Saadatu Daarayni mii nag texatum lislaam magum Touba alali sëñ Bamba martar yarub Serigne Saliou soppey sëñ Fallu xar Cheikh Abdou Lahad Mbacké wala raw Cheikh Murtala mbégum Cheikh Jili àgg suuf yàlla sedd ndigg daay mat nat mocc delloo mu sedd ma laaj 2000 bañ daay mocc mu sedd ma laaj 1500 kataraak daay ñaan def ci ndox mi mu dañ ngesal mu mu dañ jàkkaarloo sa jàngoro ma laaj 2000 siti daa koy traité soccet Omarit seytaane rab numéro portable bi 76 la 488 56 27 76 488 56 22 Touba juróom benn fukki màggal laa fa dem ak juróom ci daaw boobaa may commencé dem Touba ñaar fukki dërëm laa fayee dëkk bu ñuy wax caax réew ba Touba Mbacke ale ale le tur ñeen fukk caax réew ma nga ca diggante Pire ak booba bëri ko ceeb mi ngi jar juróomi téeméer ak juróom benn fukk léegi nag daaru muti gii ñeen fukki màggal ak juróom benn ci ren manqué ma kër sëñ Bass Abdou Khoudoss ak bu ma ñëwee ci màggal gi su ma jógee jëm si ci màggal gi lu ma am tam dagana am tam dagana lekk daa koy andaale joxe ko di ndax xeeti jàmm yàlla yëpp ginnaaw boo nekkee jullit joxew ñama cëpp doole démb bi may ñëw dama lijjanti ba am naa ñetti saaku pomme de carotte nawe supame àndaale ko kër sëñ Bass Abdou Khoudous séddale ko sàkk lii yónnee sunu mag sëñ Modou Mbacké Abdou Khoudous sàkk lii yónnee sunu rak imam bi Cheikh Abdourahmane bu sell bi sàkk lii yónnee kër sëñ Modou Habib sàkk lii yónnee kër sëñ Jili li ci des ma tasaare ko ci sëñ Kébé kat ak dongay murit yi ndax xeeti jaamu yàlla yëpp ginnaaw boo nekkee julit joxew ñama cëpp doole ndax reggal benn julit moo gën tabax junni jumaay loolaa tax loola laa def dundee bisu tay bi palaa yooyu fan lay jógee palaa yi fu muy jógee palaa yi palaa yi nag maanaam diwaan ñoo ko ñoo ko préparé diwaan ba mu fi moo dégg mooy kuréel gi xaj maa moo tëgg lépp lu ci am lu travail lépp ci màggal gi daal kuréel gi nag kuréel dafa bari ay butéel mais butéel bii juróomi téeméer lay jar butéel bi